الشقة نساء أموال لن له من أجل البهاء والجمال الله أكبر أسهل على أشهد أن لا وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله شهادة عبد منيب خاشع أواه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته من الأزل إلى الأبد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والإعلان ويجدد الإيمان بدوام الإحسان واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله تعالى أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فاعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فعليكم بالجماعة فمن شد شد به إلى النار وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على قمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وثوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا يا ابن آدم تتغافل بالدنياك والأيام تناك والقبر غايتك والأحد مسواك فريق في الجنة وفريق في السعير كما في محكم التنزيل المستحيل في حقه التبديل والتزوير فتوبى لعبد بصر بعيوبه وتدارك قبل الفوات وتزود لمعاده وأردى ربه قبل هلول الممات فإن الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانات وعد راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتقاء الوسيلة وحدنا على طلب الدرجة الرفيعة والفضيلة أمرنا أمرا بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه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 ودمر أعداء الدين وجل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المؤمنين ونجنا من كل بلاء وربا وغلا وتاعون وزنا ووبا طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارشد السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا بيع الدرع اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيس ولا تجعلنا من القانتين اللهم انبت لنا الزرع واثر لنا بعدرها اللهم اسق بلادك وارحم عبادك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأشر السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا بعدرع اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم السيب نافعا اللهم السيب نافعا اللهم السيب نافعا اللهم أنزل في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكسب غيرك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 Au! ناعمة لسعيها رادية في جنة عالية لا تسمع فيها لاقية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موجوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ñaanoon nañ yàlla mu may ñu mën koo fekkewaat tey. fekkee nañ ko tey. mu ne gannaaw fekkee nañ ko tey. te yàlla du xaaj di téye genn wàll. xaaj du maye di téye genn wàll. kon dafa mel ni liñ ñaanoon yëpp yàlla nangu na ko. kon dafa mel ni liñ ñaanoon yëpp yàlla nangu na ko. ba pare nag mu indi ci firnde. ba pare nag mu indi ci firnde. Ibrahima mu ne Cheikh Ibrahim Niass waxoon nañu ne. jamono ju nekk ngeen gis lu gën a kawe. jamono ju nekk rek ngeen gis lu gën a kawe. mu ne ñu ngi dolli sant yàlla ci loolu. Euh, démb ci ngoon. mu ne démb ci ngoon. damaa toog rek ne naa téléphoné mu ne dafa toog rek xelam daj seex Ousmane jaawoo mu ne na ko oo nuyu ko. man ñëpp ñu xam ne soldaar yi bàyyi lañ te ñu nekk ci tool baay bi te ma xam ko. mu ne képp koo xam ne xam na ne sordaali bàyyi nga nga nekk ci tool bi tam xam ko. te di ca def lu mu ci mënta def. te di ca def loo xam ne moom mënu ko caa def. bu mënta def dara it dinaa la oo ndokkeel la encouragé la ñaanal la yàlla. bu mënta def dara it dina la oo encouragé la ñaanal la yàlla. mu ne bi ñu nekkee xale bu daan dem tool. mu ne ñoom bi ñu nekkee xale daan dem tool. kuñ mës a romb ngay bay sa toolab bopp. kuñ mës romb ngay bay sa toolab bopp. dañ la wax ne jaajëf. danañ la wax ne jaajëf. kooka toolam boppam lay te kooka kat tool boo xam ne moo ko moomal boppam lay bay. kon kii bay ci sama tool nag. kon kii bay ci toolam nag. mu ne kon Cheikh Ousmane Diawo sëñ mu ne mu lay wax jërëjëf. képp li nga nekk ñu mu ne képp ku nekk ci li nga nekk ñu ngi koy wax jërëjëf. ñun fii. mu ne ñun nag fii. muy Mawlana Cheikh al Islam. kon. képp ku ñëwoon te nekk beneen xeet sax. képp ku ñëwoon te nekk beneen xeet. te doo julli sax. te doo julli sax. dañuy xam ne Baye soppandiku ci yow. dañuy xam ne Baye moo soppandiku ci yow. ndax yàlla waxoon nañu ne. ndax yàlla waxoon nañu ne. dina dimbale lislaam. ci faajir. ci faajir. kon rawatina ab julit. rawatina nag ab taalibe baay Cheikh Ousmane lay bëggee bu baax. mu ne Cheikh Ousmane. sëriñ bi mu ne mu ngi lay bëggee bu baax. mu mu ngi lay tatagal. ci sa tool. ci sa tool. mu ne moom ba mu la xamee ba léegi. musuma laa gis. musut laa gis. nga yëngatu ci sa mbiri bopp. nga yëngatu ci sa mbiri bopp dëgg la. mu ne moom de mbiri baay rek. ci la la xam. kon ñëw gii boo fi ñëwee. kon ñëw gii boo fi ñëwee. yëngatu boobu ñun xeebuñ ko. yëngatu boobu mu ne dëgg-dëgg ñun xeebuñ ko. ndax daf ñuy tegtal ne. ndax daf ñuy tegtal ne. kon fii toolu baay la. boo boo ko yëgut. mu ne boo ko yëgee boo ko yëgut. message boobu nga ñu indil ñun. message boobu nga ñu indil ñun. bu leen tiit bu leen ragal. buñ tiit buñ ragal. fii toolu baay la. fii toolu baay la. dama daan wax mu ne daf daan wax ne. mës naa ko wax Alaaji mu ne mës na ko wax Alaaji Abdoulaye. mbiram yonent bi. mbiram yonent bi. yàlla koy yàlla moo koy taxaw. mbiram Cheikh Ibrahim Niass. mbiram Cheikh Ibrahim Niass. yonent bi koy taxaw. moo koy taxaw. mbiram Serigne Mahmoud ak njabootam. mbiram Serigne Mahmoud ak njabootam. Cheikh Ibrahim Niass moo koy taxaw. Cheikh mi ne kon ñun duñ ci dara. toggal ñu nañu ba neex. danañ lekk leen ñu lekk rek. leen rek ñu ngi lekk. mu ne mi ngi gërëm suñu baay Cheikh Mahmoudul Basir. samay doom. ak ay doomam. baay ak baay ak Omar ak seeni rakk. benn lam du keleng. mu ne benn lam du keleng. kenn ci nekk bu bëggoon lépp te def lépp. kenn ku ci nekk bu bëggoon lépp te def lépp. nii fi nit ñi dajee nekkee ko fi mënta nekk. ni fi nit ñi dajee nekkee ko fi ñu ne loolu nekk. luye ay bagages ak oto na ne. luye ay bagages ak oto mën na ne. waaye luye ay nit moom. waaye luye ay nit moom. ku ko defit bala ngaa def ñetti waxtu xam ne da luye woon. ku ko defit bala ngaa def ñetti waxtu xam ne danga ngaa luye woon. heure bu ñuy ñëw fii. mu ne heure bu ñuy ñëw fii. kenn ku nekk. kenn ku nekk. da nga def sa itte. lu fi indi. lu la fi indi. kenn laaju ma oto. mu ke moom kenn laaju ko oto. kenn laaju ma essence. kenn laaju ko essence. kenn laaju ko dépasse. lu muy tekki. loolu lu muy tekki. mooy ne li ma yëg. mooy lim yëg. te ndaw yi la ndaw yi te ñun ndaw ñi la liñ def liñ def ci kanam tuuti. ci kanam tuuti. ñun ci dara. danañ xam ñun ñoom ñi duwuñ ci dara. waaye ñun liñ sante yàlla rek. liñ sante rek. mu neex mu neex seen taxaw na leen góorgóorlu leen. ñu taxaw na leen góorgóorlu leen. kon nag mi ne nañ góor góorlu mu ne Cheikh usmaan ñu ngi lay nuyu ci kanam turu kër gi. ñu ngi lay nuyu ci kanam turu kër Baye Mahmoud yëpp. ma mu ne moom day nit mën na koo defal fukk. mu bañ koo faale. bañ koo faale. ndax liñ ma ndax liñ ko war a defal yëpp Baye As Mahmoud daf ko ko defal. Baye As Alaaji mu baay daf koo defal. daf ko koo defal. waaye benn boo defal boo defal sama doom. waaye benn boo defal doomam. dafa mel ni téeméer yoo dafa mel ni téeméer yoo ko def. ndax ñii am lu ci man ci ñoom ci mu ne ndax ñun ñii dafa am loo xam ne war na ko moom ci ñun ñii. te te mënut ko. waaye bàyyee naa ko bàyyi. waaye bàyyee na ko bàyyi. bàyyi seetaanu te bàyyi seetaanu ko. loolu moo fi indi. démb bi ñuy wax. mu ne démb bi muy wax ak yow. wax naa la lu nga xam ne. wax na ko loo xam ne. mën naa ko waxaat ñëpp mën na koo waxaat ñëpp dégg ko. sa ànd ak euh, Babacar mii. mu ne sa ànd ak man mii. dañ ci sant cee sant yàlla bu baax. mu neexoon mu ànd ak keneen. mu ne bu ma neexoon ma ànd ak keneen. yow junne yoo mën a ànd ak. am naa junne yu ma war a àndat. waaye genn golo nag dafa gudd waaye loo ci laal borom waaye genn golo dafa gudd waaye loo ci laal rek borom yëg ko. ñun mooy njaboot gii rek. ñun nag ñun nag gi mooy njaboot gii rek. loo ca def danañ ko yëg def lu baax danañ loo ca def danañ ko yëg lépp loo ca def ci lu baax danañ ko yëg. amee doom mu mën a ànd ak ku mel ni yow Cheikh Ousmane. mu ne suñu amee doom mu mën a ànd ak ku mel ni yow Cheikh Ousmane. kon daf ñuy wóore moom ak comme daf leen wóor rek ñoom ne man maa ngi ci njub mu yalla yàlla na yàlla saxal loola. moom it. moom it. jàpp gi mu la japp jàpp gi ma japp te yow amo ndax sa baye Mahmoud sax amut. te man awma ndax suma baye Mahmoud sax amut. Baay rek am. Baay Ñas rek am. moom Baay la japp mom Baay Ñas la japp ñun Baay Ñas jàppuñu. ah dama ko mu ne daf la wax démb ne. suma yaay daf daan wax ne. suma yaayam daf daan wax ne. suma suma waja suma ndama nga ca gàcce nga ca. mu ne bul fexe ba gàcce fekk la fii. te xam na ne gàcce du la fi fekk wallaay. dama neex lool. dina ko neex lool. balaa déwén ci. balaa déwén bii. ñu ne kër gii de kër Babacar la. mën na koo tabax waa kër gi mën nañ koo tabax. waaye bu ñu ko tabaxee ñu ne ah, ana Cheikh Ousmane. waaye mi ne ñoom bu ñu ko tabaxee ñu ne ana Cheikh Ousmane. bàyyi la war te moo koy def te moom yow la ko féetale. la war te moo koy def te mu ne yow la ko féetale. mu ne kon sas baa ngoog. bëgg naa daal ñëpp ñee ko. mu ne bëgg na daal ñëpp ñee ma man. ni ñu ko ko ñee ci ànd gi ma ñee ci ànd gi nga xam ne maa yaakaar moo xam ne ñëpp danañ ma ci ñee. suñ bis bu xewatee ngeen feetal ko xam ne am na te suñ bis bu xewatee ko ba am na. loolu boo ko defee ñun def ñun mu ne loolu. boo noonu ci yow demee ci keneen demee ci keneen. yow mii demee ci keneen demee ci keneen. bu la ko defee la yow ñu defal ko keneen defal ko keneen defal ko ci njaboot gi. bu ma ko defee man ñu defal ko keneen defal ko keneen ci njaboot gi. daal di daj ci ñun. dafay daal di daj ci ñun. mu ne lolu mu ngi la koy ñaan. di la ko digal. te di la ñaanal yalla mu yombal la ko. mu yombal ne xamna la ci tol yu bayyi bari ca tay ba barki dembu ci Cheikh mohammed Nazir. mu ne ko ëpp na ñaar fukki at. te Sidi mo len bolé ca Banjur. mu nga leen. boole ñoom boole ni ño boole leen ak nit ñoo xam ne ñu doon leen teral. su ma siidi ne ma nañ dem ci Cheikh Ousmane. ba léegi su ko siidi ne ko nañ dem ci Cheikh Ousmane. mu ne ko loolu nag dëgg dëgg sëriñ bi daf may def kersa. mu ne yàlla yàlla saxal loolu ci yow. lu waay ut ci yow lu waay ut ci yow rek. la fekk ci yow. mu ne yàlla na yàlla yokku la ba nga yëg ne yokk na la. yokku njabooti kenn ku nekk ci yow bañ yëg ne yokku nañ. yokku ku nekk ci yow bañ yëg ne yokku nañ. te yàlla na bu seytaane am amin mu ne amoon nga cër ci ñoom mu ne amaan yeneen cër ci ñun. tey bu fekkee ne Mbaye Ndiaye mii rek nga mu ne tey bu fekkoon ne Mbaye mii rek nga amoon. te Mbaye mii maa ngi koy ooyee Moussa Diop. te mu ne mii kat mu ngi may ooyee Moussa Diop ki jur sama yaay. Moussa Diop moo jur ndax Moussa Diop moo jur sama yaay. mu nekkoon nit ku am wërsëg am daraja. mu nekkoon nit ku am wërsëg alaaji ba pare maam alaaji def ko bëkk néegam nekk sëtam maam alaaji ba pare maam alaaji def ko bëkk néegam ñun suñ mag yëpp liñ daan wax ñun mi ne ñoom seen mag yëpp liñ daan wax xellente ko woon ma mel ni Moussa Diop xellente ko woon ma mel ni Moussa Diop loolu lañ doon wax kon barke la woon mu ne kon loolu lañ doon wax te loolu barke la woon ku ko daan toppal téeréem bi ku ko daan toppal téeréem bi ay doomi mbiskit la lay fay ay doomi mbiskit la lay fay loolu daf ko participer ci pays bi am na garab mango gu nekkoon sama kër baay am na garab mango gu nekkoon kër maam Mahmoud mangok musa job lañ ko tuddee. mangook Moussa Diop lañ ko tuddee woon. ñu bari ci ñun. mi ne ñoom ñu bari si ñoom. daan tijji moo daan bindal kiis. bu école daan tijji mo leen ni bindal kiss ki kon bu bokku ton ci serigne Mahmoud sax. mu ne kon man suma bokku ton ci mam Mahmoud sax. ku ko defal bàyyi nga teral ci serigne ci ci ci ci musa Diop. ku ma man di defal rek bàyyi nga teral ci mam musa job kon ko noonu. mu ne kon dafa bëgg nga xamé ko nonu ñaari tank nga fa taxawé nak mu ne ñaari tank nga fa taxawé mooy sabab Hmm? hadis bi ñuy olofal mu ne sëñ Omar mu ne. hadis bi bii ñu def ci koor gi di ko olofal. loolu Moussa Diop moo loolu maam musaa Diop moo ko sabab. loolu xelante kon mu ne loolu xelante woon maamam am ko. ku nekk bëgg nga boo sa doom am ko wala sa maam ku nekk bëgg nga soo ko amut sa maam am ko wala sa doom wala sa sët. bët bu set na ñu gis teraanga. bët bu set mu ne ñu ngi gis teraanga. bëggal mu ne mi ngi bëggal waa dëkk bi. na indi nañ fi ay njëmbat. na indi nañ fi ay njëmbat. ay ay mango. pamplemousse limon limon. xottu butéel xottu butéel. ak goyaab ak goyaab. Cheikh Maay moo ko joxe. Cheikh nañ ko ci dëkk mu ne indi nañ ko ci dëkk bi. loolu génnut mu ne loolu génnut Baay Ñas. waaye bañ koy jëli. waaye bañ koy jëli. Sidi mu sëñ daam. moo jël otoom. moo jël otoom. ñu indi ko ba fii. xam naa ne ku am ku am occasion liggéey ci Fass Baye Mahmoud. mu ne xam na ne moom ku am occasion liggéey fii ci Fass Baye Mahmoud. da nga ko def. da nga ko def. kon ku ko defut rek. mu ne kon ku ko defut. sa tuur a jotagut. sa tuur moo jotagut. waaye incha allah kii ku bàyyi saf. waaye incha allah ku bàyyi sas. ku bàyyi saf. ku bàyyi saf. dana la saf fii dana la saf. sëñ Mahmoud dafa amut. sëñ Mahmoud dafa amut. amut ak njaboot amut ab dëkk. amut ak njaboot amut ab dëkk. Baye Niass rek la am. la am. ci tool Baye la mos a jonkan. ci tool Baye rek la mos a jonkan. ma xam ci moom. mu ne sëñ Ousmane Diawo mii li mu xam ci moom. tool Baye bu mu gis du laajte ku ko ji. tool Baye bu mu gis du laajte ku ko ji. day jonkan di Baye rek. dëgg la mu ne loolu mën na koo seete parce que daf koo dund gis ko. Hmm? Bachir Niang mu ne Bachir Niang mii Alfayda dañoo tok dem rek di watan. dañoo tok dem rek di waxtaan benn waay bu nga xam dafa jógee ci benn organisme di pour bëgg dafa si Ben organisation seet ko mu dafa bëggoon a bi mu imam bi mu oo imam Baye mii man ak ak yow mii ak man mii ñu toog waxtaan ñu yu yu man yu yu man yu ci Mahmoud yu ci Mahmoud bi mu demee rek. bi mu demee rek. Basiir nag romb. Basiir mii romb. daal di may arrêté. daal di koy arrêté. mu ne ko ñun de ci faas lañ jëm mu ne danaa ñëw suba. mu ne ko ñun de ci faas lañ jëm mu ne ko danaa ñëw suba. mu xam ne loolu mbiram bàyyi la de. mu ne gan gi mënoon na ñëw fii. mu ne gan gi mënoon naa ñëw fii. ñuy nettali na fi. ñuy nettali ne Cheikh ñëw na fi. dëgg la wala ñu naan dëgg la wala du dëgg. waaye weddi gis gi bokku ci. waaye nag weddi gis bokku ci. alfayda nag. alfayda nag. mooy suñ mooy suñ mbir. mooy suñ mbir. looloo indi Baye Mahmoud fii de. looloo indi Baye Mahmoud fii. fayda bi moo indi Baye moo indi Baye. moo indi Baye Mahmoud fii. li ko dagg ci seen directeur. li ko dagg ci seen directeur. ba ca ka ca gën a tuuti. yàkkamti nañ faas Baye Mahmoud jot. yàkkamti nañ faas Baye Mahmoud jot. bañ laaj luñ ca war a taxawee. bañ war a laaj dara. ku ci joxe dara. ku ci joxe dara. daf laa neex nga joxe ko waaye ñoom laaj laaju laajtewuñ dara fii. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. mu ne kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla. mu ne léeg-léeg sax ñun ñu dimbali ñu loo xam ne ñu ñun xamuñ ko. benn waaye dafa nekk Amérique. dégg annonce bi ci Alfayda. Ah, mu ne ah yéen seen koo jàpp. mu mu ne ah yéen ziyaara bi da koo jàpp. mu ne ko premier mai la du toxu mukk. mu ne ma léegi de ci Alfayda. ko déggee ci Alfayda. nee na maa ngi lay yónnee léegi wéef. mu ne maa ngi lay yónnee léegi wéef. alfayda ma ko jox. mais loolu alfayda ko ko jox. ku nekk nag am nga ci loola te da nga koo waxul rek mu ne nekk nag ci ñun ñi am nga ci loola da nga koo waxul rek. kon nag yàlla nañu fi yàlla yàggal. mu ne nag yàlla nañu fi yàlla yàggal. yokku ñu bañ daj àddina bi. mu ne mi ngi gërëm ñi ñu fi fekk si. ñoom it ay doomi baay lañ de. ñoom it ay doomi baay lañ. boo boo nekkee séeréer sant nduur. boo nekkee séeréer sant nduur. wala ngay pël sant saw. wala ngay pël sant saw. fii ku duur alali Baye Mahmoud doo fi ñëw. fii ku duur alali Baye Mahmoud rek mu ne doo fi ñëw. moo ko wax. Baye Niass moo ko wax. dama ne ku fi ñëw wala nga def fii. daf ne ku fi ñëw wala nga def fii. Baye Niass soppandiku ci yow def ko fi. Baye Niass moo soppandiku ci yow def ko fi. waaye tey. waaye tey. oote li muy neex neex. oote lu muy neex neex. bëgg nga ko la uy si. bëgg nga ko la uy ñëwoon ñu nu neen. mu ne suñ ñëwoon ñu nu neen. te fekkuñ leen fi ñoom ñii. kon du saf lu bari. mu ne kon du saf lu bari. mu ne moon duur ak ñi ngeen fi nekk ñoom saw ñëpp. ak ñoom Ousmane. ñu ngi leen di gërëm ñu leen di sant. sama sët Seck mu ne sët sekkam sëtam sekk. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. bu yëgee ñu ne ñu ngi dem faas rek. bu yëgee ñu ne ñu ngi dem faas rek. mu ne dinaa ñëw. mu bu ñëwee indi otoom. bu def ci essance laajut kenn dara te laajut kenn dara. moom nag mu ne moom nag maamam waa kër Baye Mahmoud la. bu laajee ñu leeral ko ñu leeral ko. bu laajee ñu leeral ko ñu leeral ko. waaye coono bi dafa métti. waaye coono te naaj tàng. te naaj wi tàng. dafay wax gaa yi. dafay wax gaa yi ne mu ne waa kër bu ñu toogee naan dafa tàng tàng. mu ne ku ci ragal tàng nangu la jaamu yàlla ku ci ragal tàng rek nangu la yàlla. <laughs> tàngaay. ndax tàngaay. ragal tàngaay te ne doo jaamu yàlla. ragal tàngaay te doo jaamu yàlla. tàngaay bu garaaw mu ngi ci kanam. tàngaay yàlla na yàlla yeggale nawet bi. yàlla na ko yàlla def nawet ab barke. def ko ngóobeef gu doy. soppandiku ci loo xam ne dina neex yàlla. yàlla na buñ ko fajoo te yàlla na buñ ko fajaay. yàlla na ci yàlla def jàmm ci réew mi. mu ne xolof day wax ne. bu ñaar soxla bu ñee. bu soxla di ñaar mat di yarama sedd. yarama sedd. matière première. matière première. mooy jàmm. mooy jàmm. jàmm bu amutoon. mu ne jàmm bu amatoon mënuñoo duggee koo Medina Baye di julli si fii. ànd ak ay xale ki ki jigéen. jàmm jooju yàlla na ko yàlla saxal. mu ne waaye jàmm jooju yàlla na ko yàlla saxal. da ko def te di ko mu ne ku ko bëgg danga koy wax di ko def te di ko ñaan. yàlla nañu yàlla defal jàmm. soppeeku guy mën a am ëllëg ci réew mi. guy mën am ëllëg ci réew mi. li Baye daan wax. li Baye daan wax. yàlla nañ ca xeej yi. yàlla nañ ca jëriñu yàlla nañ ca jëriñee. ñu ngi leen di gërëm. ñu ngi leen di sant. ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ngeen ñaanal ñu. yàlla nañu yàlla may. fekkee ajuma ji di ñëw. yàlla may ñu imkaan yaar yu ñu fi ñëwee. te buñ fi ñëwee mu nangu comme ñi mu nangoo yi paase. yàlla am na loolu mën na ko yàlla na ko paase. mu ne ku mu waroon a tudd te tudd la nga jéggal ko. lu mu ci waroon a wax te ma. lu mu ci a wax te waxut ko rek mu ne nañ ko ko jéggal. mu ne jërë ngeen jëf. mu ne ñu jox suñ baay Cheikh Mamadou Basir mu ñaan. ñu dem dellu ca makkaan ba.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 اللهم لا تدع في مقامنا عذاب الذنب الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا عدو الا كفرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاه يا اعنتنا على قضائها في يوسف منك وعافي انك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير يا ذا الجلال والاكرام اللهم اخرج بي علينا من خزائن فريا عاصم الرسل ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب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 اللهم صل على رحمة الله اللهم صل يا رحمة الله آمين اللهم انك اعلم باعدائنا وكفى بك ولينا وكفى بك النصير اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وذكرنا وانتنا وحادنا وقائمنا وحرنا وعبدنا وتعينا وعاسنا اللهم يغفر لنا ايمانين وتوفنا مسلمين واحصنا في زمرة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما اهمنا وما لم يهمنا من امور الدنيا والدين وكف عنا ايدي المعتدين واعتجنا في نتن قبل الظالمين ونجنا برحمتك من قوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق القاتل لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا أن هدانا الله هو الحب إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وشاكرا عشقا نساء يا ذلن أموال له من أجل البهاء والجمال